ci yow jotaay bi lu tax ma ne jotaay bi sant yàlla la delloo njukkal Mawlana Cheikh na Ahmada Tijaan la radiyallahu taala anhu parce que ñun ñëpp sëtam la ñu wuyu amaana bu Chérif doomam keneen bu woote woon ku nekk da nga am ngant waaye ñëpp fekk Mawlana Cheikh na Ahmada Tijaan yi radiyallahu taala la ñu xeñ si ñu wuyu rek Cheikh Tidiane la ñu wuyu si suñu teewee toroxlu jël lépp jébbal la sa maama kon ñu lay wàccee sa wàccuwaay anniversaire firiwul bu mooy at bi lan nga ci versé kon jotaay bi dafa firi sa at bi yépp lan ci versé ci naka ci dox ci benn le njaboot ak Seydi Cheikh na Ahmada Tijaan yi radiyallahu taala muy liggéey bu rëy ku xam na ku xamul tamit jar nañu xamal la ko sunu doole wa'tasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu ci noonu ci laay duggee di nuyu di ziara maam Abdou Aziz Sy radiyallahu taala ci doomi itam bi teewu fii di sunu baay euh, Serigne man doomu El Hadji Abdourahmane Sylla ñu lay ziara bu baax a baax di la wàccee sa wàccuwaay. alhamdulilah amiin yaa rabbal aalamiin allah rabbi allahu taala alhamdulilah amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal aalamiin amiin yaa rabbal ba léegi tey la gën a nekk toujours rafet na ci ñun jaboot ak Seydina Cheikh jaboot ak Rasulullahi sallallahu alayhi wa bi ñu jël ay kasetam di ko gànnaayoo dana delloo si te soxla nañu ko ci jamono ji dafa mel ni dañoo rafle ay repère dafa mel ni dañoo rafle ay ay ay ay ay sang yoo xam ni ñooñu mën a teg ci yoon te pourtant raflewuñ ko mag ñi bind nañ bàyyi jàngale nañ yare nañ sonn nañ tey jii mag ñi kenn képp ku dellu si woon xam li xew fii gis ko wallaay dana rus bu lii moo taxoon ñuy sonn kon may wax rek di fàttali ndaxte fa zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin dee leen fàttali ndaxte fàttali dana jëriñ way gëm ñi jamono jii nag moyen de communication yi dafa ubbeeku boo demee ci Facebook boo demee ci WhatsApp yi liñ fay dugal da sax rus Seydina Cheikh bëggul am njaboot bu ni mel bëggul am njaboot bu ni mel bu ñu ko dara jaral tey jii ñu bëri ñi ngi profité ci ay occasion yi di ci dugal yoo xam ne bokk ci ngay wax rek di dem te li ngay wax xamoo ci dara di teg ci deru wàlliw yàlla yi loo xam ni ay fen la ay sos la ay nar la te deru wàlliw yàlla yi dañ leen a tooke Seydina Cheikh radiyallahu taala anhu xadiisul boobu am aada li wàllu yàlla nee na noonoo naa wala daq naa xare jëmale ko ci képp koo xam ne mi ngi noonoo kenn ci sama góoru yàlla yi loolu kon ku mu tiitalut ku mu ragalut ma xam ne yow ba léegi sa xol war nga ci jeemu istixfaar bi ñuy def téeméer suba téeméer goon salaatul faatihi li maa ulexa bi ñuy def téeméer suba téeméer goon laa ilaha illallah bi ñuy def téeméer suba téeméer goon yow nga du bi ñuy def te ba léegi sa xol bi set agut te jéemoo jéego jëm ci li nga xam ni mooy makaarimul axlaaq ma xam ni kon mbir yi da nga koy tudd rek waaye amul benn jeexital ci yow am na loo xam ne dafa jekkul ci ku naan julit la bés boo demee ba ne ashhadu an laa ilaaha illallaah wa ashhadu anna muhammad rasulullah war nga jombale sa bopp yu bëri rawatina nga ne yaa ngi wuyoo ci njabootu Mawlana Cheikhna Ahmad Tijani radiyallahu taala anhu te nañu fàttaliku li Seydina Cheikh wax radiyallahu taala anhu te mu nettali ko ne maamam moo ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko Seydina Cheikh mu ne ko naam mu ne ko waxal sa njaboot say taalibe bu ñu lorante ndaxte bu ñu lorante lor gi dana yegg si ba ci man te ku lor yàlla lor kon taalibe taalibe tijaan nu mu mën a ci tarixa bi te tarixa bi njëriñ rek la noonu la fi mën a sànkoo noonu la fi mën a loroo mooy taniku y'a ce qu'on de faux am na loo xam ni waru la Mawlana Cheikh al-Islam Haji Ibrahima Niass lay faral di wax ne bil qiila wa bil qaala fala tastaqilu wa bi salaati al-faatihi lima udiqa bashaaru bul dugg mukk ci kasaw kasaw bul dugg mukk ci faux débat bul wax mukk ay futilité su fekkee ni ku xam nga te bëgg nga ndollal ci yàlla saxal ci salaatul faatihi lima udiqa loolu moo war a doon sunu cër Seydina Cheikh radiyallahu taala wax nañu salaatul faatihi lima udiqa salaatul faatihi lima udiqa bu an jamii il matalibil bachar dunyal aw uxral daf an kaana aw chanba nañ leen ci góorgóorlu amuñu waruwaay bu gën a màgg boobu loolu moo war a doon suñu cër loolu moo war a doon suñu taxawaay mag ñi fi nekkoon bay nañ seen waar te rafetal nañ ko xoolal maam Abdou jamonoom radiyallahu taala anhu su demee bay wax ne jullit bu la nuyoo nga nuyu ko te muy woote jullit ne la ban tariixa nga bokk nee na roccil sa loxo seytaane mi ngi dugg waaye waxatuma ay turux yu wute waaye ci suñu biir la te rafetu jekkut ça ne nous honore pas te honoré wul mag ñi seen jàngale rafetul maa ngi koy dénk sama bopp di ko dénk bopp taalibe yi leen moytu di ko di nekk ci sunu ginnaaw clavier yi wala ci sunu portable yi di dugal ay wax yoo xam ni ay saaga ay yooyu yëpp day dellu sa kaw balaa yi musiba yi naqar yi méttitu xol yi feebar yi buñ ko diis kenn ne di wañu ko teg ñoo ko teg sunu bopp lu waaye ren sa loxo lay naaj albirru laa yabla wa zanbun laa yunsa wa dayaamu laa yamut ihmal maa tashaa kamaa tadiimu tudaa mbaax ku ràpp mu loolu dafa mag ñi jàngale loolu moo leen taxoon a xar seen tànk tubéy suba ngoon ku dégg bëccëg amuñu woon noflaay pour yar njaboot gi ñu dëddu rek mel nii du ñoom sonn ñu woon ci ñun gàccal nañ leen te du yoon man du ma ko nangul kenn du ma ko cautionner kenn rawatina sama bopp am na loo xam ni warut te rafetul te gis nga tariixa cheikha mahdil fadli wa ridwani usiisa bi sunnati wal furqaani loolu la Mawlaana Cheikh Ibrahim wax tariixa la tariixa sell ak ngëneel la kon nit ku sell rek moo war a nekk ci biir tariixa tijaan amut ni xale laa amut ni ndaw laa bés boo ci nekkee rek yow da nga ñëw pour laabal sa roxo pour sellal sa xol te borom bi subhaanahu wa taala takkut kenn ku mooy keroog yawmal xiyaam yawma laa yanfaqu maalun wala banuuna illa man atalaa bi qalbin salimin te Seydina Cheikh li mu joxe yëpp pour sellal sa xol la te tey jii wallahi da ngay rus kuy wuyoo ne taalibe Cheikh la di génnee ci làmmiñam yenn kat bi wala di am yenn comportement yoo xam ne mi ngi koy def ku ne am nga sew de naa ne respecté ko te nga wormaal ñeneen ñëpp maam Abdou ci njàngale man xaw ma gande waaye man takk naa njàngale maam Abdou radiyallahu taala nee na tey jii bu fekkee ne da nekk ci armée bi gis benn général boo xam ne mi ngi armée de l'air te fekk yow armée de terre nga nekk ne da ngay nekk armée de l'air dana a mbugal nattu la te c'est nekk armée de terre bu ci mën dara te Mawlana Cheikh Ibrahim jàngale na ci ruur ëllëg l'esprit a la sagesse mu ne mu alliman li ahlihi jami'an la siyamam xassa rafetal leen seen diggante yéen taalibe yi te ñi nga xam ne ñooy xaas yi ci biir tarixa bi nag nañ leen a wormaal nañ leen jox seen jër te loolu mooy li war te loolu mooy li am chérif ñi lay doge trait d'union nga dox diggante njabootu Seydina Cheikh gi nga xam ni moom moo nekk fii Sénégal